asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah ah ñu bëggoon a des rek ci ma Mabouba ministre de l' agriculture ah, yàlla na bu ci cat dugg dama ne kii yàlla bu ko cat topp dama ne lii président Ousmane Sonko di wax en finance lii président Ousmane Sonko di ko ci les projet politique dama ne kii il faut nga jàng mbay ah, mbay dafa nekk loo xam ne su war a jàng la science la xam-xam la mbay da nga koy jàng te dafa bari ay branche moo tax il faut ñu taxal université yoo ci mbay mi leen jublu kan bu ko bokk déglu ak xel na ko bokk dégloo xel bu ko defee ñu indi ci ñun suñuy xalaat ndax ñun ñi ñooy acteurs yi parce que ñun la mbir mi concerné ñun ñëpp ñoo war jog jóg yëngatu kon bismillah ñu bokk ko déglu. Euh, xam nga jeunes yi. Mhm. Euh, jeunes yi le ce pays a un devoir. d'accompagner les jeunes te son excellence le président de la République premier ministre bi ci ci ci ci soo xoolee ni ñuy commencer renforcer ANIDA renforcer ko Prodac renforcer les moyens du du ministère de de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage dans sa stratégie ñu créer ay coopératives agricole communautaires mhm. ak les grands périmètres agricoles ba pare suqali euh, l'agriculture familiale loolu yëpp dinañ fexe ba non seulement euh, euh, xale xale yi mais aussi jigéen ñi gis seen bopp mhm. ñu ngi doon wax ci li nga xam ne mooy wuteen witam ak lu mel ni darkase gi. Mhm. xam nga Sénégal Sodefitex mi ngi am capacité wu euh, traité soixante cinq mille tonnes. Mhm. tey jii matuñu vingt mille tonnes. at mu jot at mu jot. donc loolu moo lay wan ne am na benn quarante cinq mille tonnes boo xam ne nii war nañoo mën a euh, accompagner jeunes yi accompagner jigéen ñi. accompagner agriculteurs yi pour ñuy mën a euh, euh, euh, pour ñu mën a béy wëtteen woowu nga xam ne nii Sonefitex da koy soxla wëtteen nax dafa am juróomi fonctionnalité. Hmm, yàlla mu gaaw tuuti rek waxtu mi ngi dab. wëtteen bi dañ ci am na am na fonctionnalité médicale. Hmm. dañ ciy defar ay yére dañ ciy defar dëwlin dañ ciy defar aussi aliment de bétail. Hmm. loolu moo lay wan ne Euh, euh, euh, produit la boo xam ne nii suñ ko produire day booster industrialisation. chaîne chaîne de valeur. chaîne de valeur bi la. Mhm. donc loolu moo lay wan ne la pour ñu industrialiser. loolu moo wax dëgg la. métier mi njëkk ci métier yi. mooy mbay. ba yàllay xiir pour nu bay c'était pour nu dund pour nu faju pour ñu def suñu environnement. kon lii mu fi wax lépp lu xam-xam nangu la common sense la te mbay mi. cent vingt milliards tuuti na cent vingt milliards Mamour Diallo képp lim sàcc ëpp na cent vingt milliards Amadou Ba lim sàcc képp ëpp na cent vingt milliards kon cent vingt milliards ñu bugg ci mbéyum Sénégal te mbéy mi pied mbéy mu moo taxawloo nga nan xoolaat loolu baaxut industrie de transformation yi wax yëpp buñ amul xaalis duñ ko def te fas yéewuñoo ñoo lépp lépp dañ koy ba engrais am nañ ko ba mu doy te laa route des Niayes route des bii na ko suñu maam Touré woon ba di ci tedd nañ ko nañ ko defaraat euh, route de dafa am benn ban benn humus bu ci nekk ma dafa jaxasoo ak ban bi lépp énergie la turbe la dama li ko tàmbali route de Niayes Dakar ba ba ngay dem Sénégal oriental ba ba ngay romb le Sine et le Saloum ba ba ngay dugg le sud de Sénégal la Casamance ban boobu moo fi nekk ban boobu dama ne loo fi jëmbat mu bi lépp énergie la moo tax nu war a jóg xam ne liggéey jot na liggéey jot na te ma di ce dellu cent vingt milliards cent vingt milliards dama ne mënta mënul dara ci agriculture bu Sénégal te tant que ñu ngi seen ay fas ay mbaam ay jigéen ci biir tool yi ci biir tool yi trouvé solution jigéen jigéen ñi am ñu kàttan ci tool yi il faut il faut ñu moderniser système bi il nous faudrait benn système bu normal benn système boo day dëppoo ak jamono le Sénégal a besoin des des usines yoo xam ne de transformation te usine de transformation jërul jëndi les technicien du Sénégal mën ko à partir du Sénégal bagage yu bëree bëri dama ne jërul jëndi te armée bi armi bi ci boppam ci boppam bu ko neexoon bu armée bi jógee mënoon toj àll bi defar ko maasale ko le matériel militaire le matériel militaire est aussi et aussi agricole la matériel militaire dama ne mën naa toj àll bi mën na ko char de combat kenn xamul li mën a ñoddi ci ay machine kenn xamul lu mën a dajjee suuf si kon nous avons de moyen pour travailler pour ñu liggéey nag ce n'est pas ma booba rek mooy jóg wax ay xalaatam ñu tëdd di nelaw déedéet ma booba xalaatam lay indi noonu nu jóg accompagner ko le gouvernement accompagne ko nu dokk doon ay nationaliste jublu ci une autosuffisance alimentaire ànd ko gëm bu boobaa daañu ko dépassé mais tant que mi ngi wax lim xam di wax lim xam te benn pexe taxawul dara du sotti kenn boo ko wante dëgg ànd jublu ci réew mi liggéey ci boppam moo jot damane ba àdduna déparé ba nëga ni ba nëga nit ñi dem ci asamaan si fa añee ñuy opérer mu taxaw di waxtaan te nun Sénégal ëllëg bi suñ maam doon bàyyi ba ndëgëni ba ndëgëni mun yor am machine topp ci am machine tegu ci kan xoolaat sun bopp dama li dama ne Sénégal mbay mi dong doy na billahi mbay mi mën na ko yor mbay mi li mën a embauché état mënu ko mbay mi li mën autosuffisance alimentaire état bi mënu ko bin yàlla wàcceel ndox mi din jox kii jeeg dex géeg jën lépp bëggoon nu tedd la yombal nu ko te loolu déet yàlla ne ku ci am sam xel jàkkaarloog man taxaw di wax di ñaan sam xel laay sukkandiku déglu la ku xel yàlla du la déglu nu am sunum xel nag yàlla war noo déglu ñu jublu ci leen rek jaama bii fi suuf dund te yàlla desee lu tuñ dara dama ne bi mu jox environnement bii tekkee tax bi mu jox suufam si ñu bokk dund tey tey tey dundal jur gi loolu lañ suñu borom sant defal lépp wàcceel na alxuraan teg ci suuf ne kaamil baa ngi nii lépp lu leen réer lu leen di doon xoolee da ngeen ko ci fekk kon luñ dal noona luñ dal noona tey Sénégal bu fekkee ne mën na ñetti yoon Hollande wala lu ko ëpp tey Hollande moo nuy jaay soble Hollande soble su nuy jaay noo ko ëpp ndox noo ko ëpp nit te ëpp nu kàttan am xel lañ ñorom xel te la science est une ku ci sukkandiku xam kon waruñu na ñàkk fayda ah? ba Hollande yi din jaay soble kat xoolaat suñu bopp ci càcc gi dakk li Mali Diallo li li sàcc yi sàcc un centième bi képp buñ ko jëloon def ko ci mbay mi ñoom autosuffisance alimentaire kon buñ ko nangu yéen waa dikk bu ngeen mën a jàpp rek toppi leen sàcc jël leen duma leen indi ñu denc leen ñu génn alal ji ñu delloo ko ci réew mi mbir mi foofu la nekk waaye ma boobu moom ñu ngi koy félicité li mu war a waxoon na ko ay borit nañ ko bàyyi ay bor baaxut banque mondiale nañ ko ba FMI nañ ko bàyyi kër bi suñu banque bopp am suñ xaalisu bopp am le contrôle de notre monnaie am une souveraineté monétaire économique industrielle ah dama ne buñ góorgóorluwul buñ góorgóorluwul bi yoon buñ daanu dana métti ndax buñ daanu dootuñu jóg ca njëndum jàmm ba nëgë ni njëndum jàmm ba nëgë ni ba nëgë ni gob ba suñu maam yoroon moom la ñuy bàyyee ba tey amuñu mel ni pexe amuñu benn xalaat amuñu lu dul di nga am état bi état bi état bi te nun noo a liggéey état bi jëlee bénéfice ci nun pour defar boppam hors sujet lañ def te am na yaakaar ne a ah, daañu dëpp léegi ndax le président Ousmane Sonko fi mu teg tànkam foofu la fi mu teg tànkam dafa tombek les pays du tiers monde ñëpp monte une révolution boo xam ne danoo taxa bañ ne la woon dootu am la dootu am les nations unies comprendre nañ ñu la coopération dana comprendre nañu dama ne lii les pays du Sahel tàmbali ndam ci ndam moo ci mujj ndam képp ci mujj tax dañ leen a tooñ France tey bu ne ba troisième puissance mondiale ci or te or bépp da koo sàcc da ko sàcc ku sacc sa or bépp suñ kilifa yi dinañu toroxal leen ah tasaare suñ réew mi feder bi di ko rey lul ci noonu taal ñu trois mille et quelques villages quatorze jours ñu buum ñu yóbbu xeex nu xeex boom teguñu ko fen tey ñu wàññi ko jël suñu doom jox ko mu di ko jàngal dama ne luñ dal noona xale yi nekk France yi bisi leen jàngalul leen dara ci loxoy sàcc leen leen teg te suñu maama ko def ñibbi si leen ñu ànd toog jubbanti réew mi teg ko ci kaw xam-xam ak yoon pour ànd dem mbir mi noonu la toll waaw lii nga wax nag ci les études de transformation dafa war a mën a ne dafa war a mën a nekk machine u mbay jërul jëndi machine tournure yi jërul jëndi machine aliment yi defar aliment jërul jëndi lépp mën nañ ko dinaa muy képp lañ soxla ak yenn waaye yi nga xam ne te mën nañ koo defar goutte à goutte ab raakool du dara kooku ñii door a business sax man nañ koo defar raakool du dara ak xewti bërigo plastique du dara mayum plastique war nañ ko tàmbali Sénégal am nañ weñ gu doy sëkk waaw kan noppal géej gi ak napp yi dama ne kenn napp sunum réew ku bëgg ma naa napp mën na laa jaay la waaye ën nga indi sa gaal di napp yow loolu day jeex réew mi yomb naa yor càmm gi dafa am solo càmm sàmm moog mbayam gerte yam waaw moog mbayam gerte yam lu gaaw a barkeel la moo tax ñu ci jóg te càmm gi lépp ngi fi waaw meew mii ma liggéey naa fii ci euh, DIP benn dérive programme la boo xam ne américains yi ñoo ko ubbi les retraités de l'armée des généraux presque ñoo ko géré nga xam ne Sénégal tey bu bëggee mille tonnes yu meew au lieu que ko jëndee Hollande bu ñëwee Amérique dañ ko ñu ko ci wàññil un vingtième wala ñu wàññi ko vingt cinq pour cent te vingt cinq pour cent ñu koy wàññil alal ji gouvernement américain waroon na may Sénégal dañ ko fay baykat baykat bi dañ koy daggal jox moo tax am na programme yoo xam américain yi def nañ ko pour subventionner baykat bi noonu la ñuy subventionner mais yéen ni nga ko defee du noonu du noonu kan jël yoon wu jub yoon woo xam ne dana xaj suñuy bopp te bàyyi ay bor dama ne dama ne cent mille dollars yi ngeen di leb cent mille cent milliards yi ngeen di leb banque mondiale wóor na yàlla ne mille hectares mille hectares suuf am nañ ko. mille hectares lu ko arrosé am nañ ko mille hectares ñu ko liggéey am nañ ko ana loo doyee bor bor bi lu mu doon nga bu suuf boobu ne sa xarante baaraam ba jeex tàkk borom xëy poñe la jox ma sama yëf te doo looy wax kan bàyyi bor yi ñun dañoo gëm bor ba ci sun sun yaay yi ak sun soxna yi wurus wi leen seen borom kër jëndal dañ koy jaay jox seen doom ñu ko demal tukki mu tàbbi ci gaal gi day xëy ñu ne ko deena wala xamuñu fu ne risques yi nañ ko bàyyi dama ne ku ci am doom mu bëgg a tukki na dem ci maçon yi maçon ba am dara wala mu muul ba am dara bu fekkee day xaru géej gaa ngi noonu géej gi wutu leen ci dara réew mi am na lu ne am leen fulla ak fayda taxaw taxaw politiciens yi ñu defar réew mi ngeen toog liggéey yéen mool bu soobee yàlla état bi dina jóg ci yéen di jën di fi jógee dem fen ñi ngi xola ñi campagne bu baax nag état bi dañu bëgg le gouvernement du Sénégal copier système bi nga xamoon Alaska di liggéeyee Alaska est moins que la région de Louga te Alaska ay milliards et milliards di dugal ci jën yi waxuma laak Alaska ñoom liñ ci am rek waaye li ci américain ki nga xamul lu mu toll te Alaska am na temps kenn du napp ndax géej gi glace lay doon te teewul ñoom liñ mën a am ci jën ñun mënu ñoom genn ana lu ko waral français yi ak comité européen yi ñu topp ay banque mondiale yu salte yi ay FMI yoo xam ne xamuñu lu mu doon ah dama ne kan bokk jog defar réew mi lii ma bëgg wax lu leer naa ñi la li koy faj nag mooy état état lan état de droit état de droit bu jóg am fulla am fayda ne banque mondiale bëgguma sa yëf man bu ma la ne lépp lépp cent mille cent milliards ah am naa cent hectares yoo xam ne bu ma fa jëmbatee mango bu ma la ko bu ma ko jaayee européen am am am bénéfice su noonu kon kan kan kan semaat ubbi banque yi waaw assister crédit agricole ñun ñëpp ñu toog xam ne suñ lépp ci marché bi la ne fii aux États-Unis tey Minneapolis bu banque bu bu bourse bu ubbee sama xol bi day sedd ay toni toni barli ay toni toni ñebbe ay toni toni aroko ay toni toni toni maïs li ñu jaayante fii ci dëkk bi te kat doo gis benn jalub jal ay këyit ay këyit ak i numéro këyit ak numéro rek mooy ay milliards yi milliards yoo xam ne mi ngi aw ci trésor bi di dugg si ci réew mi di leen jariñ kon ñun a Sénégal war a na mën lu ëpp loolu lii moo booba wax kan ci jog industrialiser système bi am ful la xam ne su ne nawle lañ nekkal te waruñu toog di xoole kenn di dundal waaw dama ne les du Sahel marché la pour nous c'est un grand marché même mun exploitant port bi ak li ci nekk ak jën yi génn képp def ay industrie de transformation daw defari géej ay géej képp mën nañ ci ay milliards yi ci biir réew mi kon nun am nañ position de départ war noo mën a dem fulla ak fayda ak am jom te xam ne da nga ak say morom te da ngaa war a tekki danga nga war a raw waaw transfert du savoir ak transfert intellectuel transfert technologie yooyu yëpp lu ñu war a xam la tey boo demee France da nga fay fekk Citroën da nga fay fekk euh, Peugeot ah nga dem Japon Toyota nga dem Allemagne BMW Grundy Mercedes dama ne foo dem fu ne ba ci Amérique gi nii ba ci Amérique gi tey boo xoolee McDonald gis ngeen ko nga dem KFC gis ngeen maanaam euh, nit day xam ni muy transféré wel ba Alpha Transfert dañ ko war a xam ana àlla jiiri àlla ji mu yoroon anamu ana njuu kebe àlla ji bi yoroon anamu ana ñi fi nekkoon yor àlla ju beex dem nañ ku ci dem la miraase lépp dem loolu andi ko indi ñàkk xam-xam ubbi ay holding au niveau des familles ah bañ a topp tool li ñu yor teg ko ci yoon am na tool yoo xam ne suñu maam ban koy bay ak léegi mën na juróomi téeméeri at tool yooyu ana ñu ko waroon defar seeni doom ana ñu xal yëpp daw nañ dem Italie bàyyi àll bi noonu dem seen yoon parce que xamuñu lu xew kon le guvernement du Sénégal comme nous avons décidé cette rupture dama ne jóg leen ngeen jàppale xale yi xale yi ma gis ñu am jom lañ xale yi war nañ leen jom ci géej gi lañuy tàbbi suba ngoon di dem borom yi fite koy def ak ku bëgg a tekk képp a koy def waaw ñoo ko nan xaru xaru ñu de dañoo dem ba ñàkk pexe seeni yëf ñu confisqué ko munuñ cee jot ñu tàbbi ci géej gi ca jamono yu jëkk yeeg gor borom dereti gor mooy xaru bu jëkk a dikk mu wàññi ko waaye gor dëgg-dëgg moo am lu ko naqari mu jël bakkan bi róor ko ci ab gël kan bokk nekk nit ànd defar te càcc gi ñu ba ko justice bi baaxul xale yi dama ne laaj moo naa ko ci wax xale yi wóoluñ police xale yi wóoluñ gendarmerie xale yi wóoluñ les gardes xale yi wóoluwuñu waa tribunal xale yi wóoluwuñu cour suprême fii lañ taxaw xañ xañ Sonko ay élection te Ousmane defu leen dara ñu taxaw rek taxawu ko rek ba Ousmane bokku ci élection ak tooñ mënut a passé loolu ah pénit garde pénitentiaire yi ah les commissaires de division ànd ki nervi di dóor nit ñi ak di damm dama ne état de droit boobu ma booba tant que taxawul l'impunité jóge fi mu leen di fex ba seeni projet génn réalisé wu ay gént dong lay doon ay gént dong moo tax je maa d'urgence d'urgence ah ñii fi nekkoon ah di def musiba mbab kumba nekk yi ba nga ni nañ leen teg loxo atte leen pour jàmm mën a am ndax kat bu dëgg amut jàmm du mën a am mbay mi ngay woote moo booba dama ne bu dëgg amut bu dëgg amut du yàgg ba ngeen mën a bay dara mu sotti du dara du sot du ñu ko man te Sénégal toll na ci niveau boo xam ne ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waroon nañoo am lu ñu lekk ndax am nañ espace bi am nañ mooy am nañ pexe yi dama ne ka feebari ca Saalum ka feebari ca Saalum doon lekk lekk lekk ak tàngoor bi ah ak pënd bi ak poussière bi kooku sibur ki ndar ak moom waruñu ci garab ndax ki nekk ndar ginu tooy lay lekk te dara daa féex kooka ak ka nekk ca saalu leen dafa war a bokk kon nun ñii ak tubaab bi war ñëw bokk garab te bu sun bi ne put tubaab bi pikiir te tubaab bu juree doom duñ ko laal noonu ka nekki nit jubli ci suñu bopp liggéey te bor yi ñu wàññi ko buñ leb dara buñ leb dara douze mille douze mille milliards yooyu nga xam ne leb nañ ko pour terre bi ban njariñ lañu amal ban njariñ la amal un dixième bi un dixième bi képp buñ ko jotoon xëpp ko ci suufu su su suuf suuf dagana si tàggoo ak xiif kan kan réaliste te bañ a rêvé di wax rek muy neex ñuy wax muy neex rek déedéet foog nu futti mbum mi liggéey seen jasneer yi summi leen ko ngeen denc ko seen napp yi ngeen di sol summi leen ngeen denc ko te xam ne Sénégal ci liggéey la ne te kuy liggéey uniforme ngay sol te ni travail ngay sol ŋàbb pikk ak peel ak yet waa mbir mi loolu dong la te càmm gi ñu fonk ko sàmm gi lépp gi ci lu ngeen xaaral mi càmm gi mi ngi càmm gi te une armée boo xam ne dañuy jóg pour liggéey réew mi boo xam ne dañuy jóg am kàttan am doole une armée boo xam ne seen bagage si ngeen yor yéen armée bagage yi ngeen yor bagage yooyu jër lebi bagage yooyu mën nañ ko utiliser ci mbay mi waaw dama ne bagage yi militaires yi di seen bagage yi ngeen yor billahi mën ngeen ko utiliser pour mbay mi seen jib yi seen oto yu rëy yi ak ak char de combat billahi mën nañu lonk ay junniy machine nit ñuy bay moo tax kan seet armée bi ñu gëstu ak ñoom seet ñu ñuy ànd ak ñun ba ndax Sékou Touré daan na wax naan une armée qui ne peut pas nourrir ses populations ne peut pas les une armée bu mënta dundal am réewam bu ne mën naa garanti seen sécurité waxul dëgg Sékou Touré waxoon loolu moo tax Guinée daawun jële fenn ceeb soldat dañ jug futtiku ne ci àll bi bay ceeb bi ak dugub ji ak mboq mi ak nit yi lekk di leen ziyaar bu baax a baax a baax di ñaanal boobu boobu ak gouvernement bi ak président Diomaye a yaakaar ji nga xam ne am nañ ko ci ñoom yàlla bu mu tas yàlla bu mo tas te am naa yaakaar du tas dëpp rek dëpp del ci sa bopp depuis di sa bopp képp te incha allah incha allah daañu ko def ndax askan wi moo ko laaj kon asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences peace and love jaa ngeen jëf